xabaar yi la leen di baaxee tey si alxamis gi yem fukki fan juróom-ñeent ci weer bi ma di leen dalal jàmm bokk na ci lu ci gën a fës geneen diplomatique yi tàggat yaram di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne mbokk yi ngeen taaxil waas lëf bàkk ba jib ma daal di leen koy yaatalal mu ba jib na nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di Marie Joséphine Diallo mi ngi wuy ji boromam àllax bay démb gi fukki fan ak juróom ci weer wi njiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar gi di Aymérou Gningue moo joxe wi Marie Joséphine ma nga ci bile poste atum 1996 ba ndëgëni si liggéeyandoo ko yépp di Cheikh Abdoul Khadr Youssou Diagne Pape Diop Macky Sall Mamadou Seck ak Moustapha Moustapha Niass a ngi bokk nag kar wi ak waa këram te koy ba pare nguur gi a tax rek mu gëm ni Khalifa Sall wi dafay tas seen yaakaar dafa fas yéene tas ndax suñu waxtaanee lii dëgg ba noppi rek waxante ko seen biir dañuy àndaata Euh, chambre correctionnelle bu tribunal de grande instance su Ndakaaru daal dina àtte ni ki ci alxamis gi député wu majorité présidentielle gii di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ñu doon tudd ci mbirum trafic de passeport diplomatique yi euh, Mamadou Sall teg nañu ci ndoddam ñaari atu kaso yu muy tëdd juróom-benn weer yax naa tàngoom bi nag ñu biral ci moom juróomi weer yu muy tëdd euh, ñeel association de malfaiteurs escroquerie blanchiment de capitaux tëdd fukki weer ya jël nañu ndogal ci coow la dox diggante activiste bi lee di Alé ñu gën ko xam ci Gazelle Salvador ak meeru Ndar gi lee di Mansour Faye activiste bi nag ña doon ko toppee diffamation ak diffusion de fausses nouvelles teg Fall avocat la cour moo jébbal plainte ba ci turu Serigne Abdou Mbàkke sëriñ Suhaybu ibnu Xaadimu Rasul ak yeneen fanweer ak juróom-benn kilifa diine murit ak seeni sët dañu dut baaxam Cheikh Oumar ni dafa rek ay maam avocat bi nag nee na Cheikh da caa xas ay kilifa murit yu bari ni ay trafiquant lañu te ay complice lañu ci yenn jëf ya fay am ci mel ne rek blanchiment te loolu yëpp ngay amee Touba ga mu di peeni bërëb bi gën a doxal trafic de drogue fii ci Sénégal ubbi nañu ci planquette Xudamul Xadim dafa njëkkoon teg plainte ci ndoddi Cheikh Oumar Diagne euh, ñeel diffamation ak offense à de culture euh, Sow Miller toll ci juróom fukki at ak benn dara euh, jot na sax tëdd kaso ndax lu ni mel terewul nag ba mu génnee fekkaat nañu ci moom fanweeri takk ak ñeent ca baaru tribunal de grande instance bu Mbour Sow waat na fa ni dootul jëfandikoo lu ni mel nëbbul nag ni toxkatu yàmba bu mag la waaye nee jaayu ko ba tax na bu ñu titre des poursuites ba biral na ñaari atu kaso si moom ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi la ñu dàkkaat atteem njàng mi xawoon naa yëngu ni ki ca centre de formation professionnelle bu daara jolof ndongo ya nag ñoo doon gréew di ñaxtu ñàkkum ba ci ñu mu gënee gaaw daañu jàll ci leneen di fàttali rek ne centre de formation professionnelle gile ba ñu ko tabaxee ba léegi am na benn at tamul ndox amu itam courant Euh, ca conseil des ministres àllax bay démb gi njiitu réew mi Macky Sall jël na ci ay coppite yu bees Maodo Ndaw juriste financier def nañu ko secrétaire général agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte ca ministère de l'environnement et du développement durable mu di fa wutu colonel Moussa Diouf ma dem retraite Babacar Gueye médecin spécialiste en santé publique lu yàggul dara mu ne woon directeur lutte contre la maladie dal di spécialiste en santé publique ne woon lu yàggul dara médecin chef bu région médicalu Kaffrine def nañu ko directeur lutte contre la maladie mu di fa wut Babacar Gueye Mamadou Lamine Ndiaye titulaire diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion de service de santé lu yàggul dara mu ne woon chefu service d'audit interne bu l'hôpital général Idrissa Pouye def nañu ko directeur institut d'hygiène sociale mu di fa wutu madame Aïssatou Sy Ndiaye ma ñu yóbbu retraite Diop mais ñu fësalul turam ab jula la bëggoon rek joué ci Paris foot yi far rek teeri jee ci ay bërëbi commissariat spécial bu Touba Diop nag dafa wax soxna Sidi Gueye nga xam ne gérante multiservice la na ko defal dépôt benn million ci compte mu gëmuloo ga ba mu ko ko dugalalee nag la desoon ca xaalis ba waaye ba tey amul ndam aslëf si kanam gérante service ba daal di koy woo di ko laaj xaalis bi mu di ko xaarloo ndaw si nag sonn daal di dem jébalu plainte ci commissariat spécial bu Touba ba ñu ko ko jàppee nag mu xamal leen ni dafa am bor bu mu war a fay way juróom bu góor moo war a rek mu doon parier ngir gagné baayam nag wax na ni doomam ji ay millions yu bari la ko ñàkkuloo xibaar yi xam le ba tey ni rek Diop police la fanaan waaye daal manees nañu ko bàyyi ndax fay nañu benn boppam kàddu yow Ousmane Sonko doon yëkkati di wax ni rek bëggul jaar ci tur kooku nga xam ni du wax katu dëgg patron groupe avenir communication gi nag tontu na ko ci Twitter bi di wax ni Ousmane Sonko bu lay jéem weddi yëpp nag xam nañu ni du wax katu dëgg teg na ci ne rek kii di Khalifa Sall moom doon waxanteel kaddu ya du weddi lu ni mel ñaari waaye la jàpp talaata ji fekk ci ñoom benn kilogramme drogue ca sorti wu sigi xamal nañu l'enquêteur yi ne rek drogue ba moomu ñu ko te bisaaw la leen ko joxee placé nañu leen su mandat de dépôt ca prison Sigicoor gannaaw ba ñu leen defeeree parquet ba bari na ay wax yu doon wër doon xam xam ne ni rek Momo Wade ak soxnaam Ndeye Soxna dara amatul seen diggante maanaam daal dañu tas boobaak léegi nag taxul ñu bari noppi ci ndax ñu ngi doon wéy di ko wax ci réseaux sociaux yi animateur seen xar kanam lu ni mel nag ngir weddi tey firnde ni seen diggante tey la gën a am jàmm bi la xabaar nag sedd xol la def barizo di ko kenn dootul présenté askan wi soxnaam su taaru sile daal dina koy roofu googule mbégte waajile di li dëkk ca dafa jaayoon lu fukki terrain wak Kolda ni ki noonu nag mu jotoon jëlal ñaar fukki millions si suñu koppar benn sëriñ ak ay yu nekk marché Ocass bu Touba moom nag ay faux plan lotissement la doon leen wan doon leen ko naxee gannaaw ba ñu xaare ba sonn nag jotuñu seen ay parcelle sa la ñu demee brigade de recherche bu Touba la di ko toppee yemook escroquerie ak abus de confiance lii dafa daw woon kenn jotatu ko woon fenn ndawi major bu jaabi yi nag ñoo ko mujjee jàpp mu nangu tuuma ya ñu teg ci ndoddam gannaaw l'enquête ba démb ci àllox ba gi la ñu ko wanalee tàggat yaram lañu koy ndar keppee ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi a Kouyaté ak Ismaïla Sarr ba moytulee nag daañu jógee seeni club ndax la ñu firnde seen taxawaay seen naataango bi di di sa gànn gëy gannaaw mayow góor jigéen gam wañoon sol mu jux coow ci réew tugal Ismaïla Sarr dafa fësal benn nataalam bu mu ànd ak gëy ci Instagram bi Kouyaté itam dugal photom ak gànn ni ko góor dëgg nga ñoo ngi sa ginnaaw clubu Ismaïla na nag métti na ñu lu ni mel ko ci Crystal Palace bi itam Patrick Vieira tontu na di wax ni dañuy xeex discrimination teg si nee nag dana wax ak Kouyaté bu nu sukkandikoo ci ay xibaar yi Daily Mail nag ay supporteru ñaari club yi dañu dina Sarr ak Kouyaté génn seen ay club nee nañu jox place am keneen Ismaïla Sarr itam jot na xeetu xas bu ne ci lu ni mel kii di Kalidou Koulibaly itam firnde na taxawaayam Idrissa Gana Gueye gannaaw ba na ci Instagram ay nataal yu bari yowoon ci Coupe d'Afrique des Nations bi boole ak ay mbind yu muy waxee gànn ni dañu war a respecter ay choix te bañ di ko interpréter coowal Gana Gueye gi nag ñu ngi di ko waxtaanee ba ca Angleterre Nampalys Mendy fësal na ay mbind doon wax ni rek mi ngi taxawu Gana Gueye waaye daal da ko mujjoon a dindi waat gannaaw communiqué wu leste gi di wax ni rek waxtaan nañoo ko moom ci bataaxal ga mu bind bëgguloon offensé kenn wala muy wane ni rek dafa ànd ci lu ni mel leste nag ñu ngi ànd ak lu LGBT yi tarafet la nañu bu baax seen élection bi euh, moom la nag dal dinay tànn fa mu bëgg dem bu nu sukkandikoo ci l'équipe dana bokk rek ci liste 24 bleu ya ñu jël ci ñeenti matchu Ligue des Nations weeru juin euh, mbokk yi lii la ñu naan tey ci xabaar fii ci Dakar Buzz dañu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës jaa ngeen